Sénéinfo International. Sénéinfo International Sénéinfo point net bonjour daleen ak jàmm si lu gën a fës si xibaar yi euh, tey euh, euh, mercredi 28 décembre 2023 enquête euh, moom euh, dafa def dans sa une euh, mu ne les choses sérieuses commencent moom journal bi mu ngi àddu si li nga xamante ne moom mooy clôture des dépôts du dépôt des candidatures donc mu ngi koy xamante mu ñëw def si journal bi mu ne Sonko étale son programme présidentiel 2024 donc loolu la journal bi tey euh, ñëw euh, xamal tey xamal tey à sa une ñuy des rek si journal bi mu ne affaire Ndella Madior Diouf vers l'ouverture d'une information judiciaire donc loolu la journal euh, xëy enquête xëy titre tey à sa une le soleil ba tey rek mu ngi ñëwaat ci élection présidentielle bu 2024 mu ne 119 candidats à la candidature mu ne la pré-campagne et la campagne débuteront Euh, loolu la journal bi euh, xëy xamal respectivement les 5 et 4 février 2024 euh, selon le CNRA donc CNRA mu ngi xam ne ne campagne bi après campagne bi dina débuter le 5 janvier bi ñu dëgmal jusqu'au 4 février donc euh, bu ne ce qu'il faut savoir sur la suite de la procédure contre la réintégration euh, de Ousmane Sonko dans les listes électorales agent judiciaire euh, de l'État saisi la Cour suprême donc loolu yëpp journal bi moom ñu koy xamante dans sa une donc ñu des rek si journal bi mu ne hausse de saisie des négociations mu à l'inquiétude des pharmaciens la l'ARP rassure donc loolu la journal bi ñëw xamal tuuti dans sa une Sud Quotidien ba tey rek dafa procéder dans la même lancée ah mu ne euh, euh, Sud Quotidien ba tey dafa waxaat ak encore rek si présidentielle 2024 bi mu ne le dépôt des dossiers de candidature bouclé donc ni ngi démb si minuit mm, euh, la ñu bouclé dépôt candidature yi moo tax mu ne les sept sages en scène loolu la journal bi tey ñëw xëy tey euh, titré ñu des rek si journal bi mu ne euh, année scolaire euh, et académique 2022 2023 grève tout azimut sans fermeture d'université école balafré donc mu ngi àddu rek tey ba si tey si crise scolaire bi mu def ko dans sa une donc mu ne pré campagne de la présidentielle 2024 mu ne les médias interdits de diffusion d'activité des candidats du 5 janvier au 3 février donc loolu la journal bi xamante euh, dans sa une. Walfadjri ba tey rek ah, dafa ñëwaat si euh, benn interview boo xamante ne accordé na ko ki nga moom mooy Thierno Alassane Sall nekk candidat à la présidentielle ki nga xamante ne moom mooy Thierno Alassane euh, mu ngi xam le ne nee na beaucoup croient qu'on ne peut pas voler les élections mais donc moom. dafa commencé daal di njuux njaa di jiixi jaaxa si élection yi nga xamante ne moom la déglu man parce que dañu yaakaar ne peut-être que am na transparence suñu sukkandiku si journal bi ak Cheikh Alassane Diatou na Sall moom nee na euh, élection yi mun euh, na am ay njaaj njuut ak mun na loolu la journal bi xamal mu ne l'argent euh, moom la journal bi xamal xamal ñu ak Thierno Alassane Salam mu ne rek euh, l'argent a circulé durant le kooku ci Thierno Alassane Salam si la xamle na xaalis bu dee bëri euh, mu ngi doon circulé euh, bu ñuy def parrainage bi mu def ko Walf Quotidien moom titré ko loolu dans sa moom dafa ñëw rek ci voilà conseil constitutionnel bi ah mu ne clôture du dépôt des candidatures la présidentielle mu ne les candidats à l'écoute des sages donc les trois sages les trois sages euh, voilà ñu ngi doon euh, candidats yi ñu leen di déglu donc ñoom ñoo war a euh, li nga xamante ne ñoo recevoir ñi moom mooy dépôt yi ah journal bi ñëw dañu ko xamal ñu ne centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop ah l'œuvre du pharaon sera vulgarisée dans les écoles et universités Euh, doon la journal bi ñëw xamal tey euh, dans sa ñu des rek si journal bi mu ne désistement de plusieurs candidats à la présidentielle des renforts euh, pour les coalitions en lice en 2024 donc comme ni ñu ko leen ko xamee candidats yu bëri dañoo désister à la présidentielle ba mu des 119 ñoom ñoo jot a àddu pour le moment donc journal bi aussi ñëw wax si désistement boobu si def gëstu bu yaatu yaatu. Euh, libération moom dafa ñëw rek ci enquête ah enquête de la brigade de la de protection des mineurs sur la pouponnière de Kër Yacou Mandé mu ne tout sur une effroyable effroyable affaire donc euh, journal bi moom dafa ñëw rek euh, ñëwaat ci pouponnière boobu nga xamante ne de moo ko ubbi woon di ci toppatoo ay xale mais ba tey ak difficulté yu fa am yëpp ak problème yu fa am yëpp moom ki nga xam ne moom moo de la ma jox ak ñu ma doon liggéeyandoo. ñoom jàpp nañ leen ba euh, ñu ngi foofu noonu defal na leen mandat de dépôt donc journal bi ñëw xamal ñu ko mu ne euh, homicide involontaire maltraitance d'enfant donc loolu la enquête bi xamal mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de médecin, ouverture et exploitation d'une pouponnière sans autorisation administrative, traite de, de personnes, la, longue liste des incriminations visées par les enquêteurs. Donc, euh, enquête par Donc, son assistant, Chert Diandjaï, révèle avoir assisté euh, euh docteur Ndel Major Diouf lors de trois accouchements. donc mune bébé Youssou bébé Akon bébé Zuleka Ndella Madior Diouf bébé Mouhamed ah, Samba Ndiobène Ka bébé Marema bébé Bijou Ngoné bébé Diouma décédé dans des conditions atroces loolu la journal bi xamle les bébés Madické Niang Baye Baye Dieye Faye RN Saba introuvable donc loolu moo nekk situation bi nga xamante ne euh, jot nañ ko recensé fi nga xamante ne moom mooy Pouponnière Kër Yelmande euh, Ndella Madior Diouf doon ko jiite doon ko gérer dañu nemmeeku foofu daal vraiment un mauvais traitement si xale yu ndaw yoo xamante ne à tout temps nga xamuñu daal ñu enquête bi daal lool la loolu la fës fësal donc euh, ñu jeexale rek ci euh, euh, quotidien quotidien bi dafa ne la l'AGE pour réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales mu ne l'AGE pour pourvoir la Cour suprême le recours déposé avant la date limite loolu la journal bi xamal ñu ñu des rek mu ci journal bi mu ne la ñaani arrive après le Waalo donc marine nationale moom renforcé na son national comme ni ko journal bi waxee léegi am nañ beneen bateau boo xamante ne mu ngi tudd la ñaani moom euh, mu ngi foofu noonu si marine nationale ñu jeexalee rek si SYTJUST bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, grève encore moom di ko adapté na aussi jëlaat encore cent douze heures yoo xamante ne dañ koy observé waat une grève de cent douze heures journal bi ñu ne en débat de hiérarchie donc SYTJUST fonction publique mooy syndicat des travailleurs de la justice ah ñu ngi def grève ba tey donc journal bi ñëw defal ñu ko xamal ñu ko tey dans sa une.